Abdul Muttalib At-Tidjane ibnu Sidi Mohammad Al Habib petit-fils de Cheikh Ahmad Tidjane Chérif bi nga xamante ni ki démb euh, la génn àdduna euh, fi ci Sénégal ca euh, Pikine mu nekk loo xamante ni lu tiis la ci umma islamique donc mu nekkoon na une grande personnalité ba nga xamante ni ràññee nañ ko ci réew mi ak ci bitim réew mu nekk un modèle de piété nekk sagesse nekk d'engagement aussi envers les enseignements spirituels religieux religieux de la donc ñu ngi fësal suñuy njàng wala action seen info international ak seen waaw soxna Fatima comme ni nga ko waxee rek muy nag ab ñàkk boo xam ne euh, lii di euh, communauté Tidjane ñàkk na ko wante it euh, jullit yu Sénégal ak jullit àdduna ñàkk nañ ko ndax Tijaan ci àdduna bi dafa nekk euh, communauté musulmane boo xam ne yaatu na lool ki nga xam ne it moom moo génn uh-huh. àdduna euh, di Chérif Abdoul Moutalib ak Tijaani ko uh-huh. nekk sët ci ki nga xam ne kon Cheikh Ahmed Tidiane euh, la bi nga xam ne moom moo taxawal lii di tarixa Tijaaniya uh-huh. nekk na kon ñàkk boo xam ne rek comme ni nga ko waxee lu tiis lay doon mun a génnee àdduna fi nga xam ne sax mooy fii ci Dakar kon la jëwale ca Pikine mhm. euh, perte la boo xam ne comme ni ma ko waxee rek perte la pour umma li nga islam bi islamique bi yëpp mhm. di en tout cas euh, jël en tout cas di wax jàll seen info di ko jiital ci ki nga xam ne moom mooy xalif général mhm. euh, des Tidiane bu Tiwaawan di xalif Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass ca fa nga xam ne moom mooy Kaolack ak képp koo ne xalif général ko kii di en tout cas xalif euh, général des Mourides bépp xalif bu Thiénaba ak bépp rek xalif Laayeen yi ñu leen koy jaale di ko Sénégal di ko jaale en tout cas euh, képp koo xam ne rek kon euh, jullit nga di ñaan moom mu la nga xam ne kon. Mm. moom moo fi bàyyi ko di ko jaale ki nga xam ne moom mooy direct président directeur général bu Sénéinfo. Mouhamed mm-hmm. Mountakha Sakho ku ko xam-xam ne ku bëgg Cheikh Ahmed Tidiane Chérif la kon mm-hmm. nag surtout Cheikh Ahmed Tidiane it bu génne àdduna xam na loo xam ne lu ko métti lay doon. Mm-hmm. moom tamit ñu nga koy jaale di ko jaale euh, àdduna di ñaan yàlla jéggal ko mboole mi bakkaaram te xel ko aljana suma hmm, fatima kumandoo fen mu nekk lu am am solo ci njaal yooyu sax la ñuy des ndax euh, ki nga xamante ni également euh, moom mooy l'ancien ministre des finances et du budget sous le régime de Macky Sall wuutu woon na fii ci àdduna